tey ñu ngi fii kër euh, bàyyi daam loo euh, fii ci Daaru Xuddoos fekk fi nag euh, dugg ci waañ fekk fi góor yàlla yi macha allah ñu sol seen déguisement yu mucc ayib di liggéeyal sa Serigne Touba sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu lay sant bu baax. Mhm. di la jox di la masu coono ci yoon bi. Mhm. waaw ñu laaj na nan ngeen di préparer bis bi ndax yéen a ngi ci kaw fekk nañ leen ci kaw yéen a ngi raxas góor yàlla yaa ngi raxas soxna yi tamit ñu ngi ci waañ bi di defar ndawal gi di préparer ndékki li ak tout tànk yi. waaw bis bi de gis nga rek ñu ngi koy waaj depuis barki dem ba léegi ñu ngi si waar wi góor yàlla yi jàpp si bu baax ak soxna yi ak sunu papa yi sunu yaay yëpp kenn desul daal kër gi ñëpp yaa ngi xale yi ñëpp jàpp na si liggéey bi boobu ba léegi kenn nelawul bàkki borom Tuubaa liggéey si rek ngir borom bisu mën ñoo fay ëllëg luñ ko mën a defalee sunuy njaboot loolu daal lañ siy sàmm. waaw chaque jour li may wax rek xam nga ay xol boo àndee rek euh, lépp lu ñuy def rek euh, yàlla da ci bég yonent bi bég ci Serigne Touba mi nga xamante ne moom moom bis bi. Mm. Euh, bég ci ci lépp luñ ci ñaante incha allah yàlla da koy nangu te xol yi ànd na ndaxte yéen kaf yéen a ngi ree depuis démb ba léegi booloo mooy doole te yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ban mbégte ngeen am te. dafa yaatu mun ñu ko wax sax. doon na Serigne Touba. Mm-hmm. xëy na la kenn bokkul sa dëkk ñun ñëpp dañ fiy dox daje ni mais comme famille mhm. te mënunoo jàpp ne sa lii mooy suñu deuxième famille mhm. ndax suñu gisantee kafre ku ne respecté sa morom waa kër gi mën na ne bu leen xamee man dañ kii moo tax sax ma xam leen mais dafa mel ni fi laa dëkk mhm. ak góor yàlla yëpp mais dañuy sant daal mbégte am loo xam ko sax wax si télé ndax ci xol lay nekk di santaat bu baax rek di wax ñaan yàlla mu gën a yokk amiin kon mu ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal euh, am na solo yaay boobu ñu lay fay boo wér a wér waaw tey ngeen nekk fi tey ci waañ wi Euh, gis nañu góor yàlla yi comme ni ñu ko waxee sànq yéen a ngi dóor waar macha allah di liggéeyal Serigne Touba ban mbégte ngeen am tey. waaw ñu ngi sant Serigne Touba rek wéer a wéer waaw Baye Fall moom wax dëgg si waar bi xanaa sant di sant leen suñu borom di sant bi suñu borom rek waaw. màggal gi daal mooy loolu alaa dama parce que gars yi moom ay Baye Fall lan te tamit Salam Famille mooy loolu. lan ngay ñaaxaat xale yi tout tànk yi nga xamante ñuy topp seen ginnaaw. waaw ah, sëñ moom ku ko liggéey moom doo ko perte wax dëgg yàlla parce que moom kese la nag moom lañ gëm heure bu ñu xëyee da nga sant rek di ko ñaan tamit màggal gi chaque année ñuy ñëw di def suñu doole ak suñu kàttan mooy lool macha allah am na solo kii mooy Serigne Touba mi nga xamante ne moo boot Njaago Pël. soose xeet wépp sëñ Touba da koo boot kon mu ngi noonu nañ liggéeyal sëriñ Touba di ñaan suñu borom lépp lu ngeen fi baayfaal baa ngi taalibe Jésus waaw taalibe taalibe Jésus baayfaal ah, naa kontaan naa vraiment maa ngi lay nuyu waaw ma lay fay tey rek ñu ngi fii sama laa wax sama nijaay daam lay ndax mook sama nijaay Alaaji Omar Ka ay wëllëre la ñu woon moo tax fu ñu ñëw ci Touba it fii la ñuy dal ndax fii mooy suñu kër nijaay maa ngi lay nuyu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm eh, di wax ne am na nañu mbégte lool ci ngeen ñëw fekk ñu fi fekk feet ñi fi dal euh, fekk feet waa kër gi ndax euh, nun fa daanaka leen fii nekk bëriwul lool waaye li ci ëpp waa kër gi mel nañu noo xam ne nii ku gan gu fi ñëw ñu dalal la kon loolu ak sant la waaye di santin ñi nga xam ne ñooy jóge feneen din fi fekk si euh, ndax ñoom ñëpp bu ñuy ñëw dañuy am Pastef gis nga liggéey bi fa daanaka ñoo koy liggéey ñoy def lépp rek waaw ba tax na ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne noonu daal sunu xol sedd na waaw sunu xol sedd na guyi ci ñin fii fekk waaw moom daal ki am fay yàlla ak sëñ bi yàlla nan bokk fay nun ñëpp waaw ñii ñu ngi jóge Bargny ñi ñu ngi jóge Ndar goram fu ne waaye nga fa jóge yàlla ngir di ñëw di dal seeg nun nun moom noo amul seenu fay nun moom lu ñu def ci yéen yàlla xam na ne xeeb na waaw ndax kër yi bari na lool Touba Touba kër yi bari na lool ab dëkk bu yaatu la Touba buñ naa def mat na un million cinq cent habitants nga weesu fi kër yëpp ñëw ci sa kër amatul loo wax waaw amatul amatul loolu wax waaw maak sama magi doomi ndaye fi dëkk maak sama magi doomi ndaye fi dëkk Cheikh Abdoulaye moom yàlla daa def ren fekkewu ko ndax daa am lu mu doon euh, lijjanti te euh, sottiwul waaw waaye yàlla baax na yaakaar naa bu beneen yoon dina ko fi fekk waaw ba tax na moom daal nu ngi leen di sant bu baax a baax ku fi ñëw daal nala leer ni leeral yàlla nu nga lay sant seen site bet yàlla na nekk ay télévision yu bari ndax yéen jàpp ngeen ci bu baax a baax ndax at mu ne yéen a ngi fi at mu ne yéen a kon jërë leen jëf rek ñu ngi sant bu baax jërë leen jëf di sant ñëpp maa ngi lay fay soxna si ji moom xam naa alab lébu mbokk ba Youssou Ndoye jaraaf. loolu moom leer na. <laughs> feer nag ci lébu gi. salaamaaleykum di leen dalal di leen wax dalal leen ak jàmm. di leen ñaanal yàlla eh, ni ngeen fi ñëwee nii yàlla def eh, déwén surtout doon ay télé télé. te am contentement nag bu rëy ci ni ngeen fi ñëwee ni ci màggal gi. di leen xamal ni eh, maanaam fii ñu ñëw nii dañ fee war a ñëw borom kër gi mën nu kaa fay parce que ay ata ngi ñu ngi daal mais wax dëgg yàlla saa boo bu màggal jotee te ñëw day mer nga xam ne loolu lu feer la ci moom ñu koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci màggal gi yàlla na ko Serigne Touba defal parce que kontaan nañ trop wax dëgg yàlla saa bu ñu fi mee jaaw ma leen fi jële ak salaam kaf ree xam nga ñaan a yokkute xam nga te loolu lépp ñu ngi koy gis màggal gi daal yàlla ni yàlla defal ay barke yu bëri xam nga képp koo xamante am ngi fi soxla yàlla faj ko képp ku fi am andi njaqare yàlla na ko yàlla saafara ci barke alxuraanul karim parce que kontaan nañ trop ñun nag amuñu lu dul Serigne Touba booñ ci wooyee ak fu mu mën a nekk dañ la wuy si wax dëgg yàlla parce que moom lañ am xam nga moom lañ yaakaar tey ëllëg waaw ñun ay murid lañ xam nga wax dëgg yàlla lool loolu feer nañ ci trop di sant nag waa Touba gi ñu fekk si mhm. parce que Touba mënoo fii ñëw ne damaa xiif wala damaa mar wax dëgg yàlla saa boo ñëwee dina la dalal wàcc seen lal génn seen kër jox la kooku nag mënoo leen a fay di leen ñaanal yàlla yéen ñii tamit li ngeen bëgg a xam yàlla yàlla defal mu doon ay tale tale kontaan nan trop balaa déwén nag màggalu dem yàlla nu yàlla may xéewal bu baax ñu ñëw fii xam nga di ko fi def parce que tamit sa waay kuy raam di la yóbbu bu dee dox doo la fi bàyyi yàlla nu yàlla may ay xéewal may nu ay oto xam nga ñu ñëw fii di dal def fi xéewal gu rëy waaw parce que tamit xéewal gi ñun ñëpp bëgg nañ ci waaw Serigne Touba moom yoonam yi amul tànki ginnaaw tànki kanam la am waaw yokkute rek ca kaw ca kanam jërë ngeen yàlla